salaamaaleykum mbokk auditeur ak auditrice u réew Rewmi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre euh, jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM mercredi bu jot lañ koy amal bu 15 heures jotee jàpp 16 heures euh, comme niñ koy defee saa su nekk suñu programme weer bu jot ñu jël ñaari ndaw yi nga xam ne euh, dañoo bëgg dem ci élection locale yi ñu jël leen rek waxtaan seeni ambition ak seeni local tey loole waral tax ñu dalal fii Jean Pape Wagane fay euh, bokk coalition Benno Bokk Yaakaar nekk responsable nekk responsable politique euh, fii ci Kër Massar euh, moo yoroon itam chargé communication Benno Bokk Yaakaar Jean Pape ñu ngi lay nuyu di am mbégte contenté dalal la fii suñu plateau sans filtre espace jeune. bi. di nuyu auditeur ak auditrice yëpp yu réew mi FM comme ni nga ko waxee xam naa damay jaar ci loolu rek te ma présenté wu man la Jean Pape Wagane Faye di responsable politique de l'Alliance pour la République au niveau de Kër Massar léegi sax avec le nouveau découpage ñu bokk ci commune Kër Massar Sud mm-hmm. nekk ancien membre du mouvement élèves élève et étudiant républicain mm-hmm. nekk ancien membre du bureau exécutif de la convergence des jeunesses républicaines dans les activités sociales di en même temps le président de la coordination des jeunes catholiques bu paroisse Saint-François d'Assise de Kër Massar nekk aussi membre du bureau du doyen des Niayes nekkoon président amical Saint-Olivier boo xamante ne moo nekk fii ci ay numadi mm-hmm. nekk euh, ci AIC lépp loo xamante ne quand même dafa concerner la vie associative en grosso modo c'est Jean Papa Gane Faye juriste de formation spécialisé en management et gestion des ressources humaines d'accord loolu la woon daal euh, ban at nga dugg ci politique Jean Pape ak lan moo la dugal ci politique ñun en réalité c'est pour lu ñu dugal ci politique c'était en 2008 ces années nous étions des étudiants nekk bi gisoon Macky Sall injustice bu muy dund au niveau du parti démocratique sénégal loolu nag la ñu ànd ak ay ndaw nag déterminé yu amoon vision. gëmoon ni que xeex bii ñuy xeex Macky Sall dans le parti démocratique sénégalais du yoon ñu jël suñu courage à deux mains créer le premier mouvement de soutien à Macky Sall ñu koy woowee la JOM la jeunesse ouvert à Macky boo xamante ne Thérèse Faye Diouf. muy administrateur général du FONGIP. Mm-hmm. nekk en même temps maire de la commune de Diarèh moo ko jiite woon. Mm-hmm. ñu ànd ci xeex ba teg lu ñuy naan le mouvement des élèves étudiants républicains mhm. gunge président jusqu'à son accession à la magistrature suprême en 2012 te boobu ba léegi ñu ngi APR mhm. loolu daal moom dugaloon ci politique xeex injustice Macky Sall looloo ñu dugaloon ci politique d'accord euh, Jean-Pape euh, laata ñu ñëw ci say ambition politique yow Kër Massar nga bokk mhm. euh, yaa ngi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Euh, Kër Massar euh, donte coow li jibul mais ñun ñi dëkk ci Kër Massar xam nañu Kër Massar euh, bëri na xëccoo yi ci biir parti yi mhm. rawatina yéen bennoo mhm. naka la demee entre Kër Massar Nord ak Kër Massar Sud en fait en réalité xam nga département moom bu amee day attiser ku nekk day day day day day bëgg a nekk candidat mais ce qui s'est réellement passé aujourd'hui au niveau de Kër Massar c'est vrai que nous sommes dans l'alliance pour la république bokk nañu parti politique mais balaa dara di xew chaque jour loolu lay wax ndaw yu may àndal moom lay wax femmes yu may àndal moom lay wax association mouvement yu may àndal parti politique bu ñu munti bokk tey ci Sénégal bu ñu fàtte mukk ni que Kër Massar mooy suñu ndam Kër Massar dañuy soxo à chaque fois nu ñuy mettre au devant les intérêts des Massarois looloo tax ñun lu ñu bokk Benno Bokk Yaakaar adopté la politique du président de la République Macky boo ko xoolee quand même depuis quatre ans nous sommes en déphasage avec le maire de la ville koo xamante ne tey président de la République moom la jël mu jiite département dans le Benno Bokk Yaakaar le département de Kër Massar ñun mënuñu bokk Benno Bokk Yaakaar dëkk Kër Massar gis anarchie agression malversation juuti yi nu commune bi demee fu nekk ñu sànc fa garage fu nekk lu waaye neex jaay parce que le simple fait que maire moo leen ko autorisé ñun suñu dëkkuwaay dundatuñu amatuñu ñu def y a aucun projet qui a été mis en place par le maire aucun projet d'avenir aucun projet boo xam ne am na vision pour la jeunesse de cette commune amul ndax dañoo war a toog di gunge koo xamante ne doxalul réew mi doxalul suñu gox looloo tax nag ñu jëloon suñu responsabilité à deux mais c'est vrai aujourd'hui on adopte la politique du présent c'est vrai que nous sommes avec Macky Sall c'est vrai que nous sommes dans le Benno Bokk Yaakaar mais aussi on a la latitude on a le courage de dire non trop c'est trop et looloo taxoon nag boobu ba léegi àndu ñoo koo xamante ne Moustapha Mbengue la te ñun dañu bëgg le visage de cette commune changé moo taxoon coow li bëri nous ce que nous sommes bii c'est tout sauf Moustapha tout sauf mu safaan. yéen ñi nekk waa Bennoo yéen yéen a wax loolu. ñi nekk waa Bennoo ñu nekk Bennoo gëm seen bopp ñun ñoo ne tout sauf mu safaan meng parce que quand dañu bëgg visage yu Kër Massar changé quand même balaa Bennoo Bokk Yaakaar nous sommes des Massarois et nous resterons toujours des Massarois. ñun sama slogan Kër Massar au cœur Kër Massar boobu nga xamante ne moom la ñuy dund ba fépp fu ñuy dem moom la ñuy namboo dañu bëgg mu changé mm. te Moustapha Mbengue 2014 à nos jours may nañ ko cinq ans Kër Massar dafa changé surplus bu Macky Sall may mairie yaa a rien qui est avancé lu tax ku mel noonu ak ñu ñuy dund ñun ñëpp Kër Massar ñu war ko may chance. looloo tax ñun ñu jël suñu responsabilité à deux mains même si le président l'a choisi même si nous restons dans le Benno Bokk Yaakaar mais aujourd'hui nag les élections locales élections locales la. élection locale élection Kër Massar la et je lance un appel à tout un chacun je lance un appel à toutes les forces vives de Kër Massar ñu xam ne affaire bi affaire de localité la affaire de gox la affaire de gëm sa bopp la loolu daal moo am mooy loo xamante ne moom la ñuy wax ñëpp xamee ko noonu bennoo la nekk waaye bu boobaa nag dinañ taxaw samp suñu ndënd danañu samp suñu lënd te dinañu xeex pour Kër Massar le visage de Kër Massar changer mon slogan c'est redorer le visage de Kër Massar pour un Kër Massar émergent un Kër Massar nouveau loolu daal la ñu am lu ñuy wax tension yu bëri na ku nekk war na am ay ambition mais ñun nag nañ jël suñu responsabilité tànn nañu ba pare accepté nañu choix au président waaye ñun am nañu latitude nag dinañ def suñu choix dinañ def suñu choix xeex pour changer visage Kër Massar ñu daal loolu dañu am lu ñu wax te ñu ngi ci loolu di ko dox. Mhm. d'accord Jean Pape laata ñuy ñëw ci say ambition euh, tey découpage Kër Massar euh, c'est vrai que Kër Massar noor ak Kër Massar sud la mais askan wi waa euh, ñu dëkk Kër Massar ñu bëri maîtriser wuñu yaa gis koo xam ne dina dëkk benn cité enseignant gis koo xam ne maam Dior dëkk du xam exactement moom fan la bokk. Mhm. est que mën nga indi leeral loolu. bon loolu moom ay ay ay ay laaj ku nekk nag wax dëgg fa la war nga commencer war nga commencer xool en réalité yow ba ci ban partie nga bokk. boo xoolee avec le nouveau découpage de Kër Massar le département de Kër Massar a été subdivisé en plusieurs communes à savoir la commune de Jaxaay Parcelles la commune de Kër Massar Sud la commune de Kër Massar Nord Malika yëmbal nord et yëmbal sud. Mhm. tey concernant Kër Massar Kër Massar ville. Mhm. on l'a divisé en deux tranches. Kër Massar nord Kër Massar sud. Kër Massar sud mooy boo jógee euh, garage entre Kër Massar di dugg ci garage dagg ko mooy maanaam diggante station bi. Mhm. yoon bu dem jaxaay yépp yoon bu dem ale jaxaay dem sédiment na askan bi yépp jàpp. que Kër Massar Sud la ñu bokk à l'exception de la cité gendarmerie 2. ak benn partie Sofrak benn partie Alaaji Paate ak benn partie Kër Massar village. lu jógee station. benn partie Alaaji Paate sud la am benn partie Alaaji Paate sud la bokk. quartier yenn partie Sotrak yi am na yu bokk nord am na yu bokk sud Kër Massar village am na yu bokk nord am na yu bokk sud ñooñu dëkk foofu nag nañu jéem a gestu par rapport à leur centre de vote par rapport ak fu ñu tàmm di voté par rapport ak fu ñuy utee kayit comme ça ñu xam fan lañ leen di defee def Kër Massar Nord station Shell bi gis nga ko yoonu Ecobank dem gendarmerie Kër Massar dem hôpital Kër Massar dem MTOA ba di dem ci Malika buur yi ñoo ñooy Kër Massar Nord Kër Massar village Kër Massar Nord donc loolu laa bëggoon ñu leeral comme ça Massar waa et Massar waa yëpp xamee ko noonu te ñu ngi ñaan tamit dès à présent Parce que en réalité nous allons nous dans les élections cruciales. C'est vrai que Kër Massar ñoo ko bokk département la. Mm. C'est vrai que c'est en deux communes. ku nekk na jël ses responsabilité metti na mettiwul mais képp ku bugg changement dans sa commune képp ku bugg changement ci gox bi ñu dëkk bëgg Kër Massar bu ñuy dox des fois ñuy toog sax du ñu naan vous êtes comme des chinois parce que Kër Massar gis nañu lu ñu bëree. Mm-hmm. du dara askanu Kër Massar bëriwoo leen. ndax dans nos cités gars yi bëriwuñu la léthargie qui est au niveau de l'entrée de Kër Massar je pense bien mun leen ko génne lu ma ci gën a metti une équipe municipale qui manque de vision comment peut-il accepter qu'on érige des marchés à l'entrée d'une commune alors qu'on a une et une seule entrée au niveau de Kër Massar comment peut accepter diriger des garages clando garage minicar garage lépp à l'entrée de Kër Massar ñu bëgg a jaar fan pourquoi à chaque fois nos trottoirs sont occupés par la marchand ambulant les marchands tabliers nga xamante ne maire bi moo complot loolu yëpp parce que dangay ngay fayee ku juuti mm-hmm. on a pris le trottoir ku mu neex jaay hygiène amul Kër Masaar lu la neex jaay zéro contrôle fu la neex teg maquette yi man dama yërëm ñu dëkkee ay nu madi ak cité enseignant ñu dëkkee ay nu madi cité enseignant Mame Dior bu ñuy ñëw dëkk j'ai peur pour eux fii Kër Massar monsieur le président de la république yow mi nga xamante ne yow la ñu dénk Sénégal ñëwal jàppale askanu Kër Massar ndax sonn nañu sonn nañu ndax suñu yaay yi suñu papa yi suñu rakk yi bu ñu génnee dañuy tiit comment peut-on accepter aujourd'hui à Kër Massar benn brigade gendarmerie nekk fi poste de police bu ñu tabax boobu ba léegi mënul rentre en exercice comment peut-on accepter les éléments de la gendarmerie bëriwuñ Kër Massar agression yaa fi mel ni tulleeg mala forêt classée de Mbao zéro éclairage forêt boo xamante ne yi dañuy dugg nu leen neexee benn lampe tàkkul ndax ñun bëgg Kër Massar bëgg Kër masaar di dund Kër Massar war nañu mën a toog eggali di seetaan loolu. à cette question je répondrai à chaque fois par la négative. Kër Massar moo ma a lu ne Kër masaar laa bëgg te képp ku ma gis am na ambition vision pour Kër Massar naa la woo nga ñëw ñu ànd dox suñu projet pour changer Kër Massar. loolu daal la am lu ma ciy wax. encore une fois te di jaajëfal encore les encore waa nañ gën a jël seen engagement. dañu gën a jël seen engagement affaire bi affaire ba gox la te gox bi ñooy borom. d'accord euh, Jean-Pape benn laaj bu bokkul ak euh, les ambitions politiques euh, gis nañu. seen njiit Macky Sall seen mm-hmm. leader. Mm-hmm. Euh, sa façon de faire. Mm-hmm. Euh, pratiquement écrasé na ñëpp ñi nga xam ne ci des alliés. à savoir foo mënti jógee PDS PS ci local yi. ñi nga xam ne bennoo lañu bokk na jël mettre leen au devant la place leen un peu partout ñi nga xam ne créer na d'ailleurs ay frustré ñoo xam ne génn nañ demal seen bopp ñu génn ànd ak ay Sonko ñu génn ànd ak waa Euh, noo gisee ban jàngat nga am ci stratégie bi nga stratégie bi nga xam ne seen leader noonu la koy def di écraser ñeneen ñi. ah par rapport à cette question dama bëgg tout simplement rappeler l'histoire tey Macky Sall depuis bu mu ñëwee avec le Benno Bokk Yaakaar boo xoolee Benno boobu ba léegi tasu te boo xoolee dans le Benno Bokk Yaakaar parti de référence Sénégal yépp en réalité ci lañu nekk. ku wax PS xam na parti de référence la ku wax AFP xam na parti de référence la ak yeneen parti yeneen parti te Macky Sall bu bëggoon division kese kese kese kese kese amul nëb la abi tey am na fissure ak ñas am na fissure ak parti socialiste tey boo xoolee les gens de l'Alliance pour la République au sein du gouvernement en réalité sont les gens les plus lésés les gens de l'Alliance pour la République. boo xoolee du nekk de de l'Alliance pour la de l'Alliance pour la République ñoom ñoo gën a lésew et je le répète. ci naka. lu tax moo la ko dama guma ci élection locale de tey boo xoolee Macky Sall parti au pouvoir avec le Benno Bokk Yaakaar la deuxième instance la plus importante du Sénégal kan la ko AFP. tey ñaanuñ ko tey dara bu amoon APR ces bases dañuy ñàkk ndax ña say toog mais loolu bëgg a boole bëgg a defar am confiance moo tax tey mu teg fa ñas au conseil des collectivités territoriales après le décès du feu Tanor Dia yàlla na ko yàlla yërëm pour conserver le Benno Bokk Yaakaar lan la defar jël Aminata Mbengue Ndiaye teg ko fa maintenant concernant ces élections locales là comme lu mu ko wax dama ciy revenir maire nga nekk socialiste wala nga nekk APR affaire de base la ils sont dans le Benno Bokk Yaakaar le président il a des informations et c'est vrai les informations yëpp yëpp yëpp comme nu mu ko waxee tey au niveau de de de de de de de, Kër Massar information yëpp des fois du baax te maa ngi ñaan ñu nekk au niveau du palais nekk ay conseiller président toogoon di tànn ngir yàlla war a bu ñu bëggul APR tas bu ñu buggul Benno Bokk Yaakaar tas nañuy jox le secrétaire général de l'alliance pour la république le secrétaire général bi Benno Bokk Yaakaar les bonnes informations affaire de locale la affaire de locale la du ne buux nañ leen wala buuxuñu leen képp ku wóolu sa bopp comme ñun ñuy bokk Benno ñu ñu wóolu suñu bopp demal xeexal jëlal demal xeexal jëlal loolu daal laa am lu mu lay wax que vous vous sentez lésé ou pas que vous soyez du du Parti socialiste képp ku gëm boppam ci local yi na dem xeexal jël te ñun ñu ko Moustapha Gueye doon waxee j'attaque je compte et je noonu lañ koy defee Kër Massar qu'on soit de Benno Bokk Yaakaar ou pas ñun tànn nañu Matar Mbengue et dama bëgg tey mu leer en aucun cas moi Jean-Pape Ouagane Faye responsable politique de pour la République je ne battrai pas ici solennellement campagne avec l'équipe municipale de Matar Meng avec le Benno Bokk Yakaar Moustapha Meng Moustapha Meng c'est Matar Meng du ma battre campagne ak ñoom avec le Benno Bokk Yaakaar loolu naka Sénégal yëpp xam naka président de la République xam naka waa secretaire général parti bi xam du ma baat campagne bi ñoom ndax coono yu masaar waaye yëpp di dund ñoo leen ko teg te coono jooju ñun suñu vision mooy coono jooju dafa war a dañ xoolal mbënd mi localité boo xamante ne dangay photo rek di génnee Facebook naan maa ngi liggéey localité boo xamante ne danga yor seen nit ñu yor seen photo vidéo di naan yaa ngi liggéey te koñ boo dugg problème a ngi fa kon Matar Meng bi may dégg pour euh, Kër Massar Sud Tafa Mbengue la àndal. Kër Massar Sud c'est chef de cabinet du maire c'est chef de cabinet c'est le chef de cabinet du maire de Moustapha Mbengue. dara leer ma ndax mbokkam la waaye Mbengue ñoo ko bokk. Matar Mbengue tey bu ñu tànn bu sañoon tey Moustapha Mbengue moo la ko gën a xam du nekk maire ndax Matar il n'a jamais été avec Moustapha Mbengue. mataar ñu jegoon Moustapha Meng yëpp dàq nañ leen ak tas na Benno Bokk Yaakaar ndax loolu dañu war a taxaw di ko seetaan na parti bi tas foofu ci ñoom loolu intéressé wu ñun on reste dans le Benno Bokk Yaakaar mais je le di et je le répète je signe et je persiste moi Jean Pape Faye dëkk Kër Massar di doomu Kër Massar di namoo Kër Massar di yeewoo Kër Massar dëkk fi nga xamante ne lépp lu ma am instant bi ci àdduna Kër Massar rek moo xam moo ma ko mun a dinañ ànd ak ay doomu Kër Massar te localité bi ñu jël gérer ko pour Kër Massar am ñu daal loolu dañu am lu ñu wax te dina lancer encore un appel à toutes les forces vives dañu ñëw ñu ànd booloo génnee li fi ma fàttali rek mbokk auditeur ak auditrice wu Rewmi FM euh, yéen ñu dab yéen a ngi déglu seen émission sans filtre Euh, tey ñu dalal suñu plateau Jean-Pape euh, Wagane Faye euh, bokk coalition Benno Bokk Yaakaar responsable politique fii ci Kër Massar Jean-Pape man maa ngi soog a gis élection locale yu ni mel mhm. jeunes yi daw nañ song élection locale yi mhm. tey commune boo dem pratiquement bëri na jeunes yi nga xam ne bëgg nañ bokk ci jogante yi mhm. loo gisee attaque boobu la fait que les jeunes nu ñuy attaqué noonu locale yi man nu ma ko gisee dafa yomb gis nga Sénégal doxalin bee war a changer ñu nekk dans un pays où 70 pour cent pour ne pas dire 75 pour cent de la population est jeune dëgg la nee nañu mag baax na ci réew waaye nag mënuñu nekk ñun jeunesse bi 75 pour cent de la population à chaque fois ñu toog suñu coin di bàyyi ay troisième age di ñu jiita Sénégal lu may wax saa su nekk. man damay jékki-jékki toog laaj dinaa ndax chef de quartier sax dangaa war a retraité ba pare nekk chef de quartier ndax junior jeunes yi dañoo war a toog xawma ci ban texte lañ ko bind ndax mag mooy jiite hmm, lu tax Sénégal ñu am conception jeunes yi ñoo fi bëri jeunes yi amuñu liggéey jeunes yi ñooy sonn jeunes yi ñooy uti dépense jeunes yaa ngi def lu nekk pour am boo demee station Kër Massar dem fa 6 heures du matin ba midi sa yaram day daw ndax ñun dañoo war a toog ñun jeunesse boobu à chaque fois qu'on attend des personnes âgées trouver des solution pour notre devenir pour notre avenir ndax ñun jeunesse bi dañoo war a toog ay nit yu jógee fële tëju ci ay néeg yor seen course wala seen chapelet door seen sabadoor wala seen costume dóor mbaxane bu rëy naan ay sage lañu di décider pour notre avenir dëgg la kat dinañ leen jox cër ndax suñuy mag lañ dëgg la kat ñu ngi Sénégal dëkk boo xamante ne nag da ngay war a wormal mag te di nga leen di wormal ba mu mën sëkk ndax dañoo yar mag dinañ ko jox cër waaye toll na koo xamante ne la place de la jeunesse dafa nekk loo xamante ne dafa war a am tey xoolu gouvernement bi ay pas ñooy décider à la place de nous de nous autres jeunes va à l'Assemblée nationale sur de cent vingt députés ñaari jeunes nga fay da ngay gis sax dans les partis politiques des gens qui sont âgés de plus de quarante cinq ans daal ñoom ñoo jiite jeunesse politique pour lan. foofu laa bëggoon les choses doivent changer. loolu ngeen foog ne du yéen yéen ko war a xeex. loolu parti politique yi. parti politique bu nekk moo ko war a xeexal boppam. am 35 ans nga puus may sa morom idée yooyu la ñu war a am ku am 35 ans nga puus may sa morom may xale bu ndaw xale bu ndaw bi doxal la population sénégalaise elle est jeune jeune am na doole am na courage am na lépp da ñuy toog di naan non les jeunes sont frustrés les jeunes dañu am xët lu tax ñun ñuy ñu naan non jeune amul expérience fii xoolal Macron ban année la président assemblée nationale bi nga amoon France lan at la ñooñu dañuy doxal réew ñun ñooy lekk may gay ñun ñooy taxaw ci angulu maire caaf bi ñun ñooy wàcc deux heures du matin taxaw ci maire puus puus bi di lekk ñun Kër Massar tey loolu lañu soxla ku dëkk ñun di bokk ak ñun jotaay di waxtaan ak ñun xam les véritables mots de Kër Massar. xam li fi xam li fi xew xam ñun lu ñuy dund loolu la ñu gëm te j'ai vu même au niveau de Kër Massar Sud. beaucoup de candidats yoo xamante ne mm-hmm. ay supposés milliardaires lañu dañu am xaalis on a une vision pour Kër Massar ma leen di ko wax askanu Kër Massar ñooñu en toute sincérité bëgguñu leen dañ leen di ñëwaat pour nax comment des gens yoo xamante ne tey mars la ñuy fanaan wala Mamet seen papa ak seen yaay dëkkuñu fi wala almadi di ñëw Kër Massar spécialement pour yenn ak ñun guddi bu jotee ñu dem tëdd almadi du ñu dégg bruit du ñu dégg haut-parleur xoolal pollution sonore Kër Massar du fi am amul fenn 6 heures du matin nga yeewu ay wa masque ay wa dal ay wa lii haut di ko taal fu nekk minuit une heure du matin kenn mënul nelaw ambulance boo ko yoree munoo dem fi hôpital te ci affaire hôpital bi sax laay wax président dama lay ñaan tey aujourd'hui Kër Massar Kër Massar Nord Kër Massar Sud avant ñu doon naan c'était composé de plus de 160 quartiers plus de 500 000 habitants te centre de santé la ñu am président Kër Massar malade bu ñu fi am ñaari clinique la ñu am mënuñu jël en charge les les les les patients. centre de santé Kër Massar amul effectif président ambulance amul Kër Massar lu tax amul Kër Massar bu ñu amee accident sax Kër Massar caserne Rufisque ngay woote wala caserne Guédiawaye ñu xool seen disponibilité. Kër Massar amul poste de police. te balaa yegg si yàlla moo Kër Massar nan lay yegsee Kër Massar oto bu mënul dugg. diggante entre Kër Massar ak station tu fais là-bas deux de temps diggante Kër Massar na xamante ne tey Massar waaye fooy ba la ñuy ci di dox c'est pas éclairé. ñu leen di agressé. depuis ñu ngi lancé la sonnette d'alarme dinaan monsieur le président nañu xool insécurité bu am Kër Massar doy na waar àll bi ay samba boy suba ngoon ñoo fi nekk di agressé depuis deux boo xoolee garage Jaxaay dem fa. les agresseurs sont là-bas matin soir di def loolu ñuy woowee Simon dañu war a toog di seetaan président kaay jàppale mais tamit may wax ak askanu Kër Massar les jeunes. de l'ensemble des quartiers de kër Massar organisez-vous et gérez votre propre sécurité wax ñu ngeen dóor wax ñu ngeen gaañ mais ngeen gérer seen sécurité des personnes et des biens gars yi wu vous ku nekk na gérer sécurité am ku nekk na jéem a teg en place son projet d'avenir ñun nag par rapport à notre projet dinañu ñëw ci gox goxaan yëpp waxtaan ñoom jéem a organiser ñu ay millions ñu ay milliards benn affaire rek la ñu yor suñu bëgg-bëgg ci Keur Massar te bëgg boobu boobu bëgg boobu dañuy mettre pour Kër Massar jëm ci kanam loolu daal la am ci wax. d'accord Jean-Pape euh, yéen euh, yaa ngi bennoo. Mhm. donte bi yow lañ investir Kër Massar Sud. Mhm. mais fa nga bokk. Mhm. tey euh, bu doon yow lañu tànn. pour Kër Massar lu doon say ambition say projet. tey dama bëgg ñu leeral foofu maa ngi bennoo pour Kër Massar Sud. nga bu doon man lañu tànn nekkul une question de frustré je l'ai dit et je le répète c'est vrai que je suis dans le Benno Bokk Yaakaar mais avant tout j'ose le rappeler à chaque fois que je sois du Benno Bokk Yaakaar du Parti socialiste ou du PASTEF ce qui nous importe aujourd'hui c'est que nous sommes des dignes fils de Keur et notre premier parti politique par rapport à notre contrée par rapport à notre localité ce parti politique s'appelle Keur et s'appellera toujours Keur foofu laa bëgg ñu leeral aux élections je le et je le répète je ne serai pas avec le Benno Bokk Yaakaar concernant les élections de la localité de, la, de cette localité par le simple fait au niveau de Keur Massar on ne sera en aucun cas avec l'équipe de Moustapha Meng et cette équipe on a eu à choisir Matar Meng qui est chef de cabinet du maire le bilan lañ ko def nañ ñu wax ñoom lan la ñu defal waa Kër Massar te Kër Massar bu mu fi taxawee ne am na lu ñu def Kër Massar ragal naa ci station bi dañ leen di tax ku romb dóor bu leen taxoon ci porte station bi ku romb yàq nga yor dóor ndax mere bu ñu mere Kër Massar l'équipe de Moustapha Meng ñoo tax tey ba Kër Massar boo taxawee sax di wax ak Macky Sall di wax waxu Macky Sall du ñu gis kanam Macky Sall kanam Moustapha Meng la ñu gis. mais eh, président Macky Sall xanaa moom yëgul loolu bay jël ku mel ni Matar di ko fi teg. président yëg na ko wala yëgu ko ñu doon def investiture yëg nañ ko war a yëguñu ko jël nañ seen décision dans baax parti mais lu may wax rek bu ñu tëjee géew gi ñun ay doomu Kër Massar lañu. parti bi jël na position ñun nag doomu Kër Massar jël nañ suñu position jël nañ suñuy position jël nañ suñu responsabilité dinañ ko acté on va battre campagne. avec les dignes fils de Kër Massar te bu boobaa ndam rek incha allah pap yaay xale bu jigéen mag ak ndaw ñépp ñoo xamante ne tey je di dis et je le répète politiciens dinañu ñëw indi ay milliards femmes yi ku nekk dina ñëw dina naan dama lay financer dinañu jël seen CV jabar yi ne leen dañ leen di intégrer dinañ leen jox cent mille ngeen fay chaise dinañ leen jox soixante-dix mille pour ngeen fay récépissé waaye délégué de quartier yi yéen laay waxal surtout ñu dëkk Kër Massar Sud maa leen di ko wax délégué yi seen doom yi seen yaay yi seen jabar yi seen askan ñoo nekk ci koñ délégué yi yéenay responsable koñ yéenay saaju koñ ngir yàlla war a suli yéen lañu jiital jàpp leen ni que lépp loo leen def ba gaañ seen askan même bu leen ko waxul sachez que vous avez eu à trahir toute une génération vous avez eu à trahir tout un peuple je le dis et je le parce que boo xoolee politique ku Kër Massar responsable politique bu ñëw jéem a rassembler les délégués de quartier responsable politique bu ñëw day jéem a gis délégués de quartier yi seen kër hmm. ku ñëw nag par déglu leen ko waaye ngir yàlla war a boo leen di jël seen décision jël leen décision bu baax bi jël leen décision doomu Kër Massar jël leen décision pour xam ni que ëllëg ci biir da ngeen di dem cette jeunesse ñooy moom Kër Massar ku leen jox xaalis askanu Kër Massar lekk leen waaye jouru vote ba ngir yàlla voté leen pour seen avenir voté leen pour Kër Massar changé loolu daal laa amul lu may wax li ko sàndiwaale ci émission bi. su ma la déggee baax présenter je vais me présenter je vais battre campagne et je vais appeler l'ensemble des forces vives de Kër Massar à venir nous accompagner dans notre projet pour changer le visage de Kër Massar. ngay àndal. ku ñuy àndal on le dira d'ici deux jours mais une chose est sûre hmm. une chose est sûre et certaine. Nous, Jean-Paul Ouagane Faye et son équipe avec l'ensemble des jeunes avec l'ensemble de la population de Kër Massar Sud man léegi su may wax su ak noo sax may jaaxal su may wax sud ak nord daf may jaaxal ragal naa man mii tey di battre campagne sud battre naa les campagnes nord parce que tey affaire bi nekkul affaire de sud affaire bi nekk découpage am na nekkul affaire de commune sud nekkul affaire de commune nord ñun bëgg nañu ñun bu ñu gañee commune sud commune sud nu muy naatee commune sud nu muy rafetee commune sud nan la ñuy def ba améliorer cadre de vie bi commune sud dans notre projet nan la ñuy def ba marchand ambulant yi duñ fi taxawati commune sud nan la ñuy def ba nekk lu waay neex teg jaay commune sud nan la ñuy def ba insécurité dañ waaye commune sud nag loolu nag ce sera notre combat phare mm-hmm. waaye Kër Massar tamit commerce bi duñ ci wax Kër Massar man dama mel ne yàlla na ma yàlla baal au niveau de Kër Massar amatul contrôle dëgg la nit war nga chercher ay revenu mais Kër Massar léegi ñun suñu tali bi yëpp la bëgg a def ay magasin. n'importe comment. lu waay neex def fu la neex ubbi boutique fu la neex def ko ubbi ko portail askan bi tamit lu baax neex def ñu transformer suñu dëkk en marché est-ce qu'on va l'accepter tey protestant je parfaitement phase avec eux. tey entre Kër Massar je suis en face avec eux notre domaine ñoo ko moom sama xalaat bu gàtt église évangélique lieu de culte baax na pour jaamu yàlla la waaye man sama vision personnelle quand je su ma nekkoon maire Kër Massar dëgg la mun na indil xaalis localité bi mun nañu am ay milliards mais man milliards yooyu mu ñuy indil mais sama askan am kàddu bi comment peut-on accepter à l'entrée d'une def fa lépp centre commercial xanaa nan la ñuy duggee nan la ñuy dëkkee nit day wàcc sonn feebar déjà Kër Massar mu ci gën a métti rek man askan bi lu ñuy dund dama leen yërëm Kër Massar da ngay yeewu 4 heures du matin wala trois heures du matin nga gis suñu yaay di dang-dang mm-hmm. dang-dang yi di yor seen paanu jën di dang-dang yi di daw 5 heures du matin nga gis ñu ci yor seen sac di daw marché aux poissons yi ñu ngi fële dëgg la mm-hmm. mais on peut les organiser ak Kër Massar y marché bi je pense bien su leen organiser dugal leen ci biir dëkk bi gars yi dinañ dem jëndi si on peut les organiser ñëpp ñoo xamante ne ñuy jaay gars yi dinañ leen fekk tey marché ay numadi xool ko xoola marché ay numadi bii xool ko manque d'hygiène insécurité totale marché baa ngi waaj a daanu bu tawee moom poche poche yi kenn mënul dem ndax loolu war nañu toog di ko seetaan est-ce que loolu wóor na suñu yaay ak suñu pape di fa jaay ñu ngi fay jaay dëgg la ñu ngi fay jaay dëgg la mais nekk lu leen gënal di jaay nekk ci poco poco yi nekkul lu leen gënal suñu yaay di ndugg nduggi ñu ngi fay jaay dëgg la dëkk bi dafa metti da ngay yor sa sa sa sa sa sa leket bu rëy yor sa juróom fukk dem bërëb jënd benn place ñaari passage ci biir marché bi rek nga xam mën a amee mënoo ko amee Auchan wala feneen mais da ngay dem par la force. yaakaar naa ni que loolu yëpp suñu projet la dañ ko war a defar Kër Massar dañu war a defar image bi garage case ba dañ ko war a mun nañ leen organiser garage clando yi jaxaay comme c'est pas possible mun nañ leen organiser on va pas arrêter le job parce que ñoom ñëpp seen gañ perte fii ku nekk da war a yóbbu dépense kër parce que njaboot mu ngi lay xaar mais on va essayer de les organiser pour ëllëg ci biir képp ku doon am junni dinañ lijjante ba nga am ñaari junni te quand même doo déranger le premier projet à faire pour Kër Massar ak lépp loo mënti am te améliorer woo cadre bi Kër Massar defoo dara. ci hmm. daal loolu mooy suñu gis-gis. d'accord suñu projet. et hmm. en plus encore une fois on ira aux élections avec ce projet là te dinañ ko ñëw proposer ko askanu Kër Massar yëpp. d'accord une autre question Jean-Pape euh, jeunes yi bëri na ñu song local yi. Hmm. Euh, waaye bëri itam. Euh, bennoo sax la bu bëree mm-hmm. ñi nga xam ne c'est des ministres mm-hmm. ñi nga xam ne c'est des directeurs généraux mm-hmm. investir nañ leen ci yenn communes yi pour ñu jël maire yi da nga foog ne ndaw ñi am nañu chance année année bii face à ces ténors face à ces ténors mais que la bonne affaire il y a des yoo généraux yoo xamante ne aujourd'hui on les a investis à cause d'un parti je suis parfaitement en face je suis pas contre les ministres qu'on a eu à investir je suis pas contre eux mais je le dis à chaque fois. mais bëri ci de. ma ne bëri na ci on les a mais je le dis c'est vrai qu'ils sont dans le Benno Bokk Yaakaar j'ai vu il y a beaucoup même de jeunes APR qui ont eu à créer de listes parallèles du mu leen ko waxal dara parce que ce sont des pionniers de l'APR ñu nekk parti politique de l'opposition au pouvoir ñu nekk dans le parti politique de 2012 à 2021 pour ne pas dire bientôt 2022 di muñ amuñu dara. booyu parti bi dañoo sonn sagu lañ fi nekkee sol costume bu rafet takk cravate takk super sang mel ni man yor seen journal di yëg njaga njaay di bandi bandilu parce que responsable politique da ngay utal sa bopp sag vous voyez des gens aujourd'hui qui défendent le président de la république di ko xeexal ci lépp di véhiculer ay projet di ko waxal lépp boo économie bu nga ko laajee caan bu ko defee benn yoon ñaari yoon du ko mun a ci mais ils ont adopté cette idéologie qu'on soit de l'APR ou du PASTEF lu ñu intéressé tey mooy c'est que nous sommes tous des Sénégalais et nous resterons toujours des Sénégalais et nous le demeurerons pour toujours suñu origine suñu nationalité du musa dañ tey jeunes yi laay waxal nañu nekk directeur wala ñu nekk ministre waaye baatu askan bi askan bi rek a ko moom baatu askan bi doo yore ay milliards askan bi rek ko moom askan bi laay wax ci élection locale yi bu dee vous voulez un changement de comportement un changement de visage dans vos localités affaire bi du présidentielle du législatif affaire de kon affaire de gox la prenez vos responsabilités jeune bu gëm boppam bu yaakaar ni que bu songee locale yi dina ko jël xeexal xuusal waxtaanal ak askan bi ba am ci ndam loo am jëlal man kay waxaat mënuñu fi nekk ñuy am rek di am parce que tey dama yeewu un bon jour kenn xamul la nii Adam nii Ève nga ñëw ca gox ba nga naan Macky man la fal ministre maa leen war a jiite ndax lan ndax ñun bu ñuy set setal fii biir Kër Massar ndax dañu gis ministre wala député ndax bu ñuy suñuy askan di jënd ordonnance dañuy gis Macky Sall wala wala député ndax bu ñu nekkee fii di xeexal suñu église di xeexal suñuy jumaa di lijjante lieu de culte yi rafet yi dañu gis président wala député bu ñuy gérer suñu sécurité danoo caché dañu gis lii wala député léegi bu ñu waree tànn jël koo xamante ne almadi maris mamel indi ordre bu rafet ñëw je vais vous financer j'ai un projet d'avenir pour vous kooku la ñuy jël ndax lan ma ne Kër Masar bi dem askan bi yéen laay waxal ku fiy fanaan di fi lekk di fi naan lekk mburoog ndambe mburoog tron dem kiosque yi di wër reer dem jënd sandwich wala brioche ñun ñooñu la ñu soxla te Kër Massar yaakaar naa ni que yeewu nañu. Kër Massar bii Kër Massar bu bees bii man Jean Pape Wagan Faye mon combat personnel dinañ dem ñu ñaan yàlla am ci ndam waaye Kër Massar bii foog affaire yi soxla. Euh, mais Jean Pape nga foog ne yenn yéen duñu yéen ko war a xeex. lu tax jeune bi nekk ci biir parti bi am le potentiel qu'il faut. am euh, bagage. nécessaire yëpp am na ko ñu jël benn ministre boo xam ne ministre la directeur général la investir laat ko pour mu dem ci élection locale yi te pourtant foofu ñu ko investir am na benn Jean Pape Wagane boo xam ne tey presque population Kër Massar bi yëpp wala population commune bi yëpp moom la ñu àndal. yéen loolu doo ko xee au sein des partis. ma laaj la benn mooy lu ma doon wax rek fi mu yéen li ngeen war a njëkk a bañ président Macky Sall di investir dans les communes. ma la bu ñuy investir dans un parti politique. yow yow mi dëkk ci commune bi yow yaa xam jafe-jafe ya fa ne. dama la ne yow yaa xam askan wi lan soxla. loolay dëkk dama la ne tey dans tout parti organisé parti politique du Macky Sall rek muy passé di yeewu askan bi di leen parti politique noonu lay doxee gars yi ñuy investir. Sénégal la norme moo waroon nekk dañu waroon def ay primaires aux élections askan bi xeex ku gagné dem élection. loolu mooy dëgg mais Sénégal système bi tollagul foofu man lenn laay déplorer te naa continuer di ko déplorer dama ne les partis politiques ñuy investir ay paa yu xubadaas dafa toog paa yu xubadaas bu ñu fa toogee du ñu fal xale dama ne les partis politiques yépp laa wax xeex leen les instances de décision jeunes yi bokk fa jeunes yi toog fa jeune fa bokkee toog fa dina investir moromu jeune am ma ne paa paa lay investir pas pas les investir loolay dëgg. nañu jox jeunes yi plus de responsabilité loolu mooy dëgg. d'accord euh, beneen question rek xam naa mooy bu mujj bi Jean-Pape. Mhm. tey le janvier 2022 population Kër Massar Sud. bu mhm. ñu faloon Jean-Pape maire looy doxale luy doon say projet luy doon sa mbëbët pour Kër Massar. ah Sylvie de li nga wax man dafa neex sa xol on a déjà finalisé d'élaborer notre programme la dernière fois on a eu à à présenter benn esquisse ci suñu programme mais yàlla suñu borom bu ñu mayee tey parce que ñun nag lépp lu ñuy def ci kaw àdduna Sénégal dëkku maam Cheikh Ibrahima Fall dëkku Yacine Thiandoum la. Mhm. dëkku maam El Hadj la. Sénégal c'est un pays laïque waaye muy catholique comme musulman ku nekk da nga gëm ci yàlla ñun catholique yi dañuy gëm ci yàlla te lépp lu ñuy def ci yàlla rek lañ ko dégg. man mii doon catholique. yàlla de bu defee mu fal ma naa bég naa kontaan waaye boo xoolee à chaque fois loolu lay wax jeunes yoo xamante ne jeunes catholiques yëpp Kër Massar xam nga maa ko jiite mais chaque fois loolu lañ may wax président boo xamante ne jamais mu def réunion bureau restreinte quoi réunion bureau élargie rek dama kaa ubbi nu képp koo xamante ne am na xalaat am na gis-gis am na mën-mën na ñu waxtaan tey bu ñu falee on a notre projet en tête on a notre vision bu ñu falee tey semaine bu stop conseil municipal même bu tenir toutes les forces vives on va encore s'appeler toog waxtaan jàpp leen ni que lépp projet ñuy def Kër Massar on va pas vous les imposer dina ñëw waxtaan ku nekk joxe xalaatam ñu def loo xamante ne moo gën pour Kër Massar waaye nag une chose est man de ak suñu équipe ak suñu gëm-gëm la première chose de à faire notre premier projet bu ñuy njëkk a def askanu Kër Massar xaw ma ndax bi ngeen ci d'accord wala doo leen ci d'accord waaye entrée Kër Massar Kër Massar nu mu mel marchand ambulant yi du ma ne zizanie wala bordel sax c'est trop dire mais anarchie bu nekk Kër Massar maquette yeeg affaire yooyu yëpp dinañ leen teggi ci tali principal bi du leen dàq ndax moom la ñuy amee défense waaye anarchie bi dina dañ te dinañ leen organiser. ça ce sera mon premier projet le projet d'abord d'améliorer le cadre de vie des Massawa si ce sera le premier projet soo ko dem ci projet d'avenir bi fii boo newee damay defar piscine dangay sóob raxaskatu dàll yi fa la raxasee seen dàll. boo newee damay defar jet di diggantuloo masaar waaye dangay sóob raxaskatu may yi nekk ci tali bi fa lañ koy raxasee boo nee dem leen di defal jardin defal leen fleur tey Macky Sall avec son grand projet le pont baa noonu mais tey si on améliore pas le cadre de vie ma ne la Yoff pont ba rafet la Saint-Lazare boo xoolee ñuy mariage lu ñu am xew sax dañuy dem photo Pikine rafet na waaye Kër Masaar bii nii mu mel dafa jardin xool ay tànt lañ fay lal takk seen micro dinaan mas ma jaay téere ma jaay lii ma jaay loolu mënul nekk dafa war a changer biir Kër Masaar loolu daal moo am lu mu ci wax te gars yi maa leen di encore une fois un appel nañ ñu gunge nañu gëm suñu projet askan Kër Massar Sud même waa Nord dëkk la bokk ñu foofu ci élection yi waaye yéen ñëpp laay wax seen doom seen serviteur Jean Pape wagan Faye dina ñëw am ak équipe am waxtaan ak yéen mettre en place son projet et ce projet là sera un projet d'avenir ce projet là sera un projet de Keur Massar nous sommes avec une équipe compétente une équipe dynamique composée de jeunes de femme de sages et beaucoup d'experts loolu laa am lu may wax te am ñu yaakaar que yàlla bu ñu jàppalee ak lii ñu namm ci Kër Massar am nañu yaakaar gaa guddi 23 janvier lu ko pël bi doon wax wiiw pël bi lu mu doon wax wiiw am nañu yaakaar ni que askanu Kër Massar dinañu gagné. loolu rek moo ci am solo askanu Kër Massar nekk ca kaw te ñun loolu lañu gëm. yow jàppaay la rek nga joxe sa mot de la fin nga tàggatoo. ah Sylvie mot de la fin bi émission bi gàtt na sax. konoon nañ ko yokk mais moo de la fin bi tey. mooy d'abord di la jaajëfal di la jaajëfal encore une fois ci ci esprit d'ouverture bi nga am ba invité ma di jaajëfal encore une fois les auditeurs et auditrice de Rewmi FM jaajëfal encore une fois personnel Rewmi FM yëpp parce que tamit di leen féliciter aussi dans votre travail ak initiative bi ngeen am vous avez permis aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise d'avoir une tribune pour s'exprimer parce que tuddee ngeen déjà émission bi espace et c'est loolu mooy tax mu profiter ces jeunes là dem leen wax leen wax leen seen xalaat pour dëkk bi kay xam lan mooy seen xalaat lan mooy seen vision. bu leen reculer cette jeunesse les élections locales yi ñoo xam moom engagez vous battez vous pour ëllëg ci biir bu ñuy décider yéen ngeen décider aussi pour votre avenir et pour un meilleur cadre de vie de votre avenir. Mm-hmm. loolu laa am lu may wax. di profiter de l'occasion mm-hmm. aussi. di remercier l'ensemble des personnes suñu yaay yi suñu pap yi ndaw yi mouvement de soutien association yi coordination jeunes yoo xamante ne tey duñu ànd ak ñun nekk ci combat bi di remercier ñëpp di remercier ba diaspora parce que boo xoolee dès l'instant qu'on a eu à lancer la bataille c'est pas tout simplement une bataille de Kër Massar cette bataille là c'est la bataille du Sénégal c'est la bataille du Sénégal pour un changement de comportement c'est la bataille du Sénégal pour un changement pour un Kër Massar nouveau di remercier ñëpp di leen naan nag combat bi commencé gul sax combat bi commencé gul gars yi lem leen seen manche trousser les manches retrousser leen manches yi lem leen seen dàll sol leen seen basket ngeen xam ne kat terrain bi du yomb terrain bi dina metti nous irons en guerre waaye gëm leen Jean Pape Faye et j'irai en guerre avec vous sur le terrain mm-hmm. waaye gëm leen ni que lenn mort ou vivant ñun dinañu dellusi ci biir dëkk bi ci biir Kër Massar waaye Kër Massar bu boobaa dina am ndam du ñu bàyyi kenn sur le terrain le gars gëm seen bopp ñu ñoo ànd ak loolu daal lañu am lu la wax di la encore une la ñaanal ndam ci lii tamit ne moom nga ubbi. merci beaucoup merci beaucoup jean euh, émission bi jeex na di fàttali moo nekkoon suñu gan euh, Jean-Pape Ouagane Faye responsable politique Benno Bokk Yaakaar fii ci Kër Massar euh, di gërëm mbokku déglukat yépp jox dig daje rek mercredi bi di ñëw même heure même fréquence ak beneen invité.